niñ ko digee woon ci suñu darsu bi weesu ñu ngi fas yéene ànd ak yéen tey ci ngëneeli jaamu yàlla gu mag gi kaar di al umra mérite yi nga xam ne ñoo ci nekk xam ngeen ne démb koofa nañu waxtaanee nañu ndax sunna la walla farata la te bu dee farata ku ko mënta defloo ko da ngay am bàkkaar da ngay yeewoo mbugal yàlla ci yàlla boole ngëneel yi nga xam ne ñoo ci nekk defe naa ne bu dul woon farata du sunna sa ku dégg benn ci ngëneel yooyu di nga dox ak ba makk ngir umra ji rawatina ak ngëneel ya du ñaar du ñett xam ngeen ne yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mooy rayukaay bi lum def rekk a gën te umra ci dundam gu gàtt gi ñeenti yoon gannaaw bu mu gàddaayee nga xam ne difficilement lay mën a dikkaate Makka ndax ñu ko tëj ba ni ko yàlla di ubbile Makka terewut umra na ñeenti yoon ci fukki at yooyu mu nekk Madina umra gu njëkk gi mooy umratu alxudaybiya bi mu gàddaay ba am juróom at waaye ba mu demee mënul da dugg dañ ko bloqué ñaareelu umra gi mooy umratul qada ndax bañ ko bloqué ay waxtaan am na ba ñu signé pacte ne ko bu déwénee nga dikk ca déwén ga ci la def umra googu ñuy tuddee umratul qada mooy umra ak fay gi ca déwén jégga di fatxu makkata ndax waa makka dañoo violé pacte bi nga xam ne moom lañ amoon ak yonantu sallallahu alayhi wa sallam yonantu ubbi si makka ba mu ubbisee Makka nag jàll Xunayn xareeg Hawazin yeeg waa Taif xare bu mag boobee ca la retourné nag dikkaat Makka umra si moom la ñuy umratul Jiirana ñeenteelu umraam mooy umra gi mu umra ànd ak ajam ci atum fukkeel ma kon ci atum juróom-benneel atum juróom-ñaareel atum juróom-ñetteel ak atum fukkeel umraam yépp nag ci weeru dhul qaada la tàbbi mu weeru digg alayhi salaatu wassalaam tey nag ñu fas yéene ànd ak ci juróom-ñett ci ngëneel yoo xam ne ñeel nañu omra ngëneel yi bari nañu waaye ñu tënkal leen ci juróom-ñett bu njëkk bi mooy mbokk yi umra ak moramka ka dafay effacer bépp bakkaar bu dox ci diggante ba yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne al umratu ila al umrati kafaratun lima baynahuma xadis jàng ci buxaari ak muslim ak moram day far kafaara la ci lépp lu dox ci seen diggante ñoom ñaar ndax alxasanaat yi rafet na yudhibna sayiat alquran nee na inna alxasanaat na sayiat yi rafet dañuy demee yi ñaaw te dara gënul rafet ki bàyyi àddunaam yépp moo xam yëre la moo xam dëkk la moo xam mbokk yu jëm ci borom bi te di ko jaamoo ci barab bi gën a sell muy ci kaabaam gi ñaareelu ngëneel bi mbokk mi mooy yow mi umra xamal xam ngu wér ni ganug yàlla nga yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam nee na délégation yi yàlla di recevoir ñett lañu gan ñi yàlla di recevoir ñett lañu bu njëkk bi mooy alxaazi ki nekk ci toolu xare di jihaad ci yoonu yàlla ñaare bi mooy alxaaj ñetteel bi mooy almuctamir alxaazi walxaaju walmuctamir ki nga xam ne mi ngi aj ak ki nga xam ne mi ngi umra 8시장 끼나 사이 lu tax ñu tuddee ñett ñi ganu yàlla ndax dafa am lu ñu niroo li ñu niroo mooy kii xare ak kii aj ak kii umra dañoo abandonné seeni dëkk wëcc seeni mbokk gannaaw confort gannaaw dem ci toolu xare bi dem ca barab yu sell ya di fa jëf jëf yoo xam ne métti na ci yaram metti na ci alal waaye yàlla leen ko jaral yow mi umra ji li ngay génne bu ko yëg mukk ndax ka ngay gane jee tax yow mi xaj yow mi xare li ngay daj bu ko yëg mukk ndax ka ngay fekki moo tax subhaanahu wa ndax loo dépensé ci alal ci coona dafa fekk buur boo xam ne la mu yore xëpp la lakk ko tabe na bari la na bari na ku tabe te amul lum joxe bari na ku am lum joxe te tabewut yàlla nag tabe rekk la def te lim yore xëpp ak lakk jeexalu ko te soxlawu ci dara subhaanahu wa taala ñetteelu ngëneel bi mbokk yi mooy umra jihaad la ci yoonu yàlla yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama bi ko ndey aïchatu laajee ne ko ndax jigéen ñi war nañoo jihaad mu ne ko aha kay jihaad joo xam ne xeex nekku ca jihaad joo xam ne xeex nekku ca waaw jihaad joo xam ne xeex nekku ci mooy xaj ak umra waaw ñeenteel bi mbokk yi mooy umra dafay demee ñàkk yàlla di ci jéggale ay bàkkaar yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen di toftale ajak umra maanaam dee leen ko baril ndax ajak umra kat dañuy dàq ñàkk ak bakkaar ni kiir di walukaay googu euh, menuisier bi di souffler safara si muy takk pour mën a demee bépp tilim impurité bu nekk ci fer bi muy euh, nettoyer walla or wala xaalis ni ca soufflet boobu ayee ba nga xam ne daf koy weexal tal dara du ca des mbokk yi umra noonu lay def ci yow dafay dindi ci yow ñàkk bam jeex takk waaye dindi ci yaw bàkkaar ba nga set wecc juróomeel ba mbokk yi kii umra lu mu ñaan yàlla mu jox ko ko yow mi umra ji xamal ne amul soxla boo am rëy na mbaa tuuti na lu mu rëy-rëy bu ko yéem lu mu tuuti tuuti bu ko xeeb ndax mënoo ko fajal sa bopp waaye xamal ne soxla rëyewut ko jafewut ko feebar projet boo mun a am soxla àdduna mbaa àllaxira yépp xamal ne ba nga tàmbalee di umra rekk loo ca ñaan yàlla mu defal la ko ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam bam ne xarekat bi ak ajkat bi ak umrakat bi ay gani yàlla lañu dafa ne woona leen ñu wuyu ko ñu laaj ko mu jox leen yàlla ku mu woo nga wuyu ko loo ko laaj mu jox la juróom-benneel bi mbokk yi yool bi nga xam ni moo nekk ci umra yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi tudd na ko ci coona bi ngay daj ci dundale gi ngay daj ci sa umra yonentu wax na ndey Aïchatu ne ko am nga cib yool ci sa umra kemtalaayu sa coono ak sa dundale kon nag loo dépensé xeb ko loo sonn xeb ko yonentu it sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp ku wër néegub yàlla bi te xam ngeen ne kuy umra fokk mu wër fokk mu def tawaaf képp kuy tawaaf néegub yàlla bi du yëkkati tànk du yëkkati ndëgu mbaa mu teg beneen lu dul yàlla bindal na ko tiyaabo sippil ko bàkkaar yëkkatil ko daraja tànk boo yëkkati tànk boo teg jéego boo dox sama borom tabaraka wa taala bindal la ca yiw sippil la ca bakkar yëkkatil la ca daraja juróom-ñaareel ba mbokk yi umra aj gu ndaw la te xam ngeen ngëneel yi yonentu sallallahu alayhi wasallam tudd ci aj yëpp ba ca gën a tuuti ci li aj di joxe mooy aljanna la gën a tuuti ci li aj di joxe mooy aljanna waaw lu tax umra di aj gu ndaw ndax dafa niroog aj dangay ngay tawaaf ci aj umra da ngay tawaaf da ngay dox safa ak marwa ci aj umra da ngay dox safa ak marwa watu mbaa nga wàññi umra da ngay watu mbaa nga wàññi comme am na yu aj am te umra amu ko nag moo tax ñu tuddee umra aj gu ndaw juróom bi mbokk yi te foofu laay daanelee mooy yow mi umra ji xam nga ne dinga dem Medina di nga dem Makka te ziyaare maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kooku kenn mënta tudd yoolam makka gi nga xam ne nag boo ko demut sa umra du baax ay julli dana la fa fekk te yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne julli genn julli ci sama jàkka ji moo gën junniy julli ci jàkka judul moom ba mu des masjidul xaram mu ne julli ci masjidul xaram mu gën téeméeri junney julli yoo julli ci jeneen jàkk judul masjidul xaram mbokk yi boo bëggee xam wax ji yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wax nim ree da ngay xool boo defee une journée makkatal mukarama julli fa tisbaar julli fa takkusaan julli fa timis julli fa gee julli fa fajar cinq prières yi ngay julli makka moo ëpp soo dundoon deux cent soixante dix ans neuf mois et dix jours maanaam téeméeri junne julle loolu lay toll nga multiplier ko par cinq te loolu mooy minimum te yonent bi waxul ne loolu lay tolloog daf ne ëpp na loolu afdalu la wax gën na loolu waaw maanaam yow boo amee benn fan makk julli fa julli juróom lu lu lu mu tuuti tuuti am nga ci yoon lu ëpp soo dundoon soo dundoon ñaar téeméeri at ak juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar yu teg juróom-ñeenti weer ak fukki fan léegi boo fa amee ñaari fan boo fa amee ñetti fan boo fa amee ñeenti fan soo fay ñëw lu bari yeneen julli naafila yi ngi fay def nag ci gàttal mbokk yi na xamul ngëneel yi nekk ci umra kurut yàlla mi ñu ko sant xam ngeen ne yàlla santul ñu dara ndax njëriñam ndax soxlawul njëriñu kenn kenn mënu ko jëriñ moom mooy aji jëriñe ji subhaanahu wa taala moom la ñëpp soxla te moom soxlawul kenn yaa ayuha annaas antum alfuqaraau ila allah wallah huwa alganiyu alhamid hada wa sala allahu ala mawlana muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mouhamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg fexe ba noo leen di jote ci njàngale alquran al karim njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ci anam bu leer bu wóor bu sell bu mucc ay teg ci képp ku bëgga a jàng lecture arabe